Syntec di benn entreprise bu xarañ ci wàllu GPS dégguma di GPS dernière génération 2.0 IP 68 résistant à l'eau maanaam bu tooyee du def dara yamuñu fa GPS bi buñ la ko montalee fi nga toog dara du la ëpp ci sa oto wala sa moto ndax dangay xam fu mu nekk sa xel daldi daal bu leen neexee nga fay ko poursuivre ko en temps réel blocage à distance alerte accès vitesse alerte par message lépp ci sa téléphone tablette wala ordinateur donc looy xaar pour sécuriser say oto wala say moto ku ci soxla wooteel gaaw ci 77 881 34 84. adresse ñu ngi nekk fële ci Liberté 6 ak seen tech innovation seen jaaxle jeex na man moom ñoom rek ñu ngi toog ak Lambalogue pour nar a seq moom waxtaan journée bi amul dem arène barki démb arène nationale journée Sa ak Eumeu Sène face à face Balla Gaye Tapha Tine la maa ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyu mbokki internet bi. waaw Xaadim maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu ñëpp di wax salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier salaamaaleykum Sénégal waaw di nuyu ñëppaat di masawu ñëpp. waaw di desiwaat nii kat apik waaw di ñaanal ñëpp di sàkku si ñoom ñaan di ñaanal sénégalais yëpp jàmm di ñaanal fan si yëpp jàmm bilaahi di ñaanal mbëru làmb yëpp jàmm di ñaanal arbitre yeeg coach yeeg ñëpp parce que ñëpp a ngi apprécier kon amul kenn ku des képp ku nekk si làmb rek làmb rek taxaw na pour mbër ak mbër yëpp nag di masawu mbër yëpp waaw di leen soññuwaat rek si waar wi di góorgóorlu rek te xam ne affaire yi tamit nii la waaw waaw kuñ dul critiquer doo doon champion waaw mais champion day tëdd di mer ndax defet na ko ñëpp xamee noonu rek di gërëm borom géej gi di gërëm suñ Fallou Seck waaw suñ Fallou Seck moom sama waay la surtout góor gi si ruq bi kenn du moom di nuyu waa Alba gépp di nuyu waa Taïba waa Minam waa fépp amul ku ñu di nuy sama yaay bu baax di nuyu waa benn baraak waaw waaw di nuyu ñëpp amul ku ñu bàyyi. bëgg dem yaa ngi arène nationale noo dundee journée bi. non journée bi neex na trop xaadim mais mais mais journée bi bëri nay njàngat waaw mais neex na trop. mais bëri nay njàngat après lu si bëri dañ ciy déparé parce que kenn ku nekk li ngay ñam li gars yi ñam ak li carte rapide yi ñam bokkul carte rapide daa bokk si laamaloog may naa si journée bi waxoon naa si démb rek wax si bërki démb mais kenn ku si ne daa am verbe yoo xamante ni moom lay cuqati si lës kii bu ñëwee li neex lay laaj lës bu ñëwee li ko neex lay laaj mais lës rek fii ngay xamee ne lës foo ko kos si làmb rek da siy ñëw parce que loolu yombut parce que tey jii li ma waxoon lépp duma ko waxaat te li nga waxoon lépp la nga siy ñam doo ci ñamaat kon laa ma daa bëri ay bagage ku ne mën na see liggéey muy man muy keneen muy keneen nañ ko yaatal ku si war a mën a liggéey joxe idée yu baax nga joxe si idée yu baax nit ki loo xool si moom moom ngay gis boo xoolee si moom kii dafa soosu si siti moom ngay gis boo xoolee si moom kii borom xam-xam la moom ngay gis mais am na ñeneen ñuy xool naa ma génnaatam doylu ma kon moo waral ñu génnaat mais ñun bu sañoon dañuy dem toog noppaluwaat def si leneen mais moomatuñ suñu bopp parce que gis nga téléphone yi. xaar journée bi dem non journée bi borom liggéey na ko nag parce que li mu si def lépp togg fi ay ay ay ay suluxontu suluxa bu toog la def su am na lépp am na pokola am na talfa am na pokola am na euh, liis liis am na ay qualité yoo xamante ne ku leen ko su ne mat na combat mais loolu la ñuy soxla si journée yooyu parce que tamit journée yu mag bis bu mag nagu magasay tee mais APS bi ku ne la woon dina kaala stade bi nga weddi ko parce que dañ doon ëmb seen Sa Thiès amul woon bonheur wala bàyyiwu leen xel loolu. barke yonante bi amul woon bonheur mais gis nga bi ma génnee di dóor si ay coups ñëpp bàyyi nañ si xel maa ne Sa Thiès moo war a dem jàmb daqaaram pàccal li moom riij kaan tëj bëgg bu koy jël bu ko kenn téye signature yi daal lewet wala da ngeen kaa fàtte ah yi ñëw lewet kenn gëmul ni day neex man ko comme que nii ngeen def nañ leen bàyyi bu géew baa ñu xool ba xam di ngeen ko dund wala du ngeen ko dund mais tey dund nañ ko wala dunduñu ko liggéey nañ ko de ay coût deux cent mille moo ma doon romb mbiiw ma ne hop hop hop hop hop tey gaynde yu mer lañ fanaanoo. mais Sadio dafay que d'accord nga ci loolu. non non waaw moo ko yóbbeel li waaw moo ko yóbbeel li mais tamit baax na si moom tey bu waxoon lu rëy tey bu daanoo day gën a métti non daanu na Sa Thiès daanu na. bu waxoon lu rëy bu daanoo day gën a métti bu daanee mu réussir teg jeexal la wax si signature yombut ndax suba ga ngay xaar mais gaynde tëgg mooy wax si signature. même ko daan def lu tax ñëw ba ci Eumeu ko ci Eumeu Sène. non non non non ah moom laa ñu moom ñu yéemoon si moom moo tax man ñu ne ko woon ñi li ngay lewatal bëri na parce que lii mus koo def waa kon kii bu doon kii tamit cinquante mi ngi koy wàññi mi ngi koy suuraale suuraale bi est-ce que feeñu si parce que cër bi. cër bi feeñ na ba si làmb ji parce que saa saa saa musul taxaw taxaw na mais combat bi saa dafa daan ëppal bu taxawee doo ko ko si mën a mere mais bu du woon daan ëppal bu taxawee sax di nga xam li ma la wax faay bu baax mais loolu kenn du ko boo ko jeexee day nekk si biir combat bi mais bu la neexee da nga koy kullu si rek kenn si ko foofu mais mi ngi si feeñ na si cër bi. si cër bi feeñ na am ñu ne parce que idoloom la mooy idoloom ci làmb moo war a mu am comportement boobu ak moom yow noonu ngay gis wala am na am na moo tax Sa Thiès duuti ci Eumeu Sène. mais idole dañ nga fa. Balla bi mu ne Sa Thiès mooy sama idole da koo daan. dafa face à face mooy idolam Yékini non non du ma bëre moom parce que booy bi maa ko bëgg looloo teyoon Yékini ak loo Lo mënuñu woon laale. mais bala gay daa dem ba bëreeg idolam daan ko fi ne nii jël roi idolam fansam yëpp dem fa. Balla gay xaaj xaaja ab yëpp ñi ko supporté Tyson lañ doon supporté Tyson moo dem ba si biir bàyyi gars yi amatuñ ku mel ni Tyson ku xoromoon noonu booy bi ñëw indi njuug yu garaaw ay tenue militaire yu neex ñu daan ne ay ku kii ñu ne doomu dubalees xam nga bés ba dey daal di ñëw ñëpp dem liñ soxla si mbër lépp mu koy def mbëri dañ fa daan nekk naan nii moom mu naan une seconde ñu naan kii xanaa dafay xaru muy ñëw di ko réussir di ba egsi si si VIP bi mais dafa am yenn yenn yenn hôtel yoo xamante ni bis boo fa nekkee rek mën ngaa génn dootoo mën a nekk beneen hôtel muy hôtel ñoom Aziz Ndiaye bi mu ne waaw moo ñoom Balla Gaye hôtel biñ ne boo si génnee mën ngaa dem dootoo duggati beneen hôtel beneen hôtel du neex si yow xaw ma dégg nga ma xaw ma déggoo ma xaayaan ku dégg séeréer mais nag ñaar ñuy wër garab la boo fekkool commencement ba xamoo ku jiitu am na kër yoo xamante ni doo si nekk nit di critiquer dañ naan da ngaa soxor mais li nga yoraloon gaay bu doxut da ngaa war a xam ne kër gi li ma yoraloon gaay war naa ko see doxal de combat bii mooy sunu combat ak Balla Gaye mooy sunu bi bi bu tafaatin bi mooy sunu combat ak Guédiawaye parce que sunu combat la parce que xam nga lan moo tax mu ne xaarim sunu combat la combat ak Guédiawaye la jeexagul waaw sa no non jeexu pareeguma si Sa Thiès Eumeu Sène bi mais dama laa wax ne la jeexagul rek damay kulus bee ñëwaat ci bii mais mais combat Eumeu Sène bee ne daa am lu leen boole parce que Eumeu Sène moo ak Tafa bu bu daanoon tey Modou Lo daanoon euh, kay Sa Thiès bu daanoon tey Eumeu Sène doo ko jàq moom Modou Lo na moom Modou wala jaadu Modou te Eumeu Sène boo xaacoon ne day dem si Modou ñu bëri xas la tey nee na si diggu dooleem la toll na xaarit te ëmmam li mu wane si tafaatin wane ko si Sa Thiès mi ku neexul neexul ba neexul waaye bu la nee si diggu doolem la toll kuy ku ko war a gëm war kaa gëm bàyyi leen xel li ma leen wax parce que dóoroon na sawaay benn instant mook mook tafaatin dugal góos na ko fop Sa Thiès daa rëpp te xoolal tafaatin ni mu toll bi ko sawaay laawee bàcc ko benn épercute sawaay daa wàcc bi ñu ci biir làmb ji ci bi ñu nekkee ci biir géew bi di côté commencé simmi ko def commencé xëppoo seen ay saafara foofu noonu jàngate ñaari mbëri waaw waaw waaw waaw non ama indi na lu bees de parce que ama ñi ko doon indi ak ñi ko indi nii bokkul de waaw ama bagage yi mu indi tamit yu bees la waxaan naa ko si sama beneen bi dinaa ko waxaat nii mm-hmm. mais tamit bagage yi ji ma ko gisee si côté ñoom Sa Thiès ah mm-hmm. ñàkk moo ñëw mais bu ñu des ci liraatee seen vidéo dinañ xam ne war nañoo jàngartaat lu bëri parce que tamit man mbër xaarib duma ko yóbbu ba pare ay bagaasam di fa des ku xam mbër war ngaa man a buub bagage yëpp dugal ko si saaku am déet yóbbu nga bàyyi bagage Sa Thiès xaaj ba yëpp nga fa comme comme comme ban yi mel fii comme karo yi ni mel fii ni la mel am na yu ma si doon vidéo di wane mais ñun ñoo yóbbu woon mbër mi daanu nañ ñu jël yëpp xamaan ne yàlla moo ñëw mais Sa nañ ko teel ginnaawam buub bagage yi indil ko ko loolu moo gën a nice mais bàyyi fa bagage yi yëpp topp pression bi moo tax Guédiawaye xamul ñu defet du si ñoom mais xamuñu defet mais ku xam defet moo yóbbu mbër. mais lan la ko lan la ko mën a jural si bagage yi ñu fa bàyyi noonu. tey est-ce ko woon si Sa Thiès côté am. moom lépp ko tane. très bien defet moom lépp ko tane xam nga moom mu ta mu mu taxawoon rek bàyyi ëmma diriger ëmma day ñëw nga bëre si nga daan ko mais ëmma nit bëre si moom mu ta daan ko. wax ñaata yoon laa ko wax loolu loolu na lu ma koy wax si vidéo yi mais xoolal kon dem naa demaat mu mu mu arrière tuuti damay taxaw arbitre ba xam dina ko avertiser wala du ko avertiser xam nga jëm koo ëffal ak arbitre bi bu fekkee ne jéemut a juboo ak arbitre bi si biir bëre bi ma jéem a xaar nag lu mu baax ma wax ko buñ ko daggee dagg ma mais saa yu màmmee ma am ko parce que fayu moo gën a daax baax si booy bi mais dem dem di attaqué ku la ëpp xel ngay koy fayu ngay fayu mag mi moo gën a garaaw si booy bi moo gën muy dem di attaqué koo xamante ni mag may fayu. mais dama gis Eumeu Sène moom njëkk a pare ci biir géew bi. Eumeu Sène moo war a pare oh Eumeu pare na Eumeu xam na ni mu ko war a daane te xam na ni Sa Thiès daa mën a maye wet bis bu ma mayee wet gi ñàkk Sa Thiès day maye tànk bis bu mayee tànk bërekat day am problème parce que bërekat ay xam loolu moom liir na fi mu war a jaar ba mokkal ko mais xoolal bi mu laalee tànk yi tànk yi bañ daa dem yéegal plaqué parce que Sa Thiès li muy maye loolu daa bëri ay ñoom nees ak ñoom ñëpp noonu la leen may nees bi mu neex xaas bi jarganal googu yëpp mu koy indi bañoon mu wër ko ndomba moo taxoon mu mu indi jarganal bi nees na ko taj di ko def premier filet Sa Thiès topp ak action ñuy jarganalu yàgg amul mbër moo jaaru si tànk bi wala bu mu mayul wet te ponkal yu toll ni professionnel yu toll ni ñoom ëmma kenn du leen may wet parce que gis nga ëmma bi ñu ko mayee wet eto la ko mu nooy mu wàcce palaag bi ba si dernière faar gi mu ete dernière faar kooku Sa Thiès bu braqué day dem far force parce que dernière bara première bi bara étowul dernière faar bi si kaw la éto moo tax mu mën a tourner ba génn sax mais gis nga deuxième bi bi mu wàccee dernière plaque bi bi mu étoo dernière faar gi boobu mooy faar bi sës nii bu buñ ko étoo boobu doo yëngu mënoo koo doole waale parce parce que ñoom mbëri xam nañ ko boo ko nee teg ba mu ba mu étow yow da ngay yow bu étowoo rek da ngay sentir ne jàpp na bu jàppee boo braqué nu ko neex lay demee léegi bi mu demee ba xam ne faar gi dem na loxo bi lay naan day teg avant muy teg waay mënoon nañoo bërewaat sax. ci combat maa la wax loolu arbitre bi bëree mu wax ñoom Pokola bi mu waxoon bërewaat bii moo gën a nekk bërewaat. lu tax loolu. waaw parce ñun ñoo soxlawaat bërewaat ba. bu lu tax ñuy bërewaat. non non non mën nga jël am na mën nga ne jël amul Sa Thiès bu amee lee si bu si amee lee jël am na. man nangu naa. ci loolu Sa Thiès jël am na. mais fi bëre bi toll am na ñaar ñu mu doon toll foo jaar bëriwaat parce que gars yi xiif bëriwaat ñun ñooy arbitrer suñu bopp nag parce que ñun xam nañ mbëri ñoo leen juddulu parce que tey xoola Sa Thiès bu demee ba Eumeu seen am si moom ay daan nga ak daan nga joxal Eumeu waxal victoire la saa nangul ne ne loolu sax victoire la mais Sa Thiès tamit na xoolaat bu baax parce que combat passement ka war a gagné de yi mu ñàkk yi mu ñàkk bëri na de xaar dëgg neexul te loolu la fan si di doye combat passement tant que a goo ko. mais bala ñëw ci combat passement lu mu riis riis riis bu amul bac demul. Ah, demagul waaw mais bu ñu ñëwaatee ci ci ci combat bi euh, dañu gis bi ko ëmb seen takkee foofu dañoo wax Sa Thiès mënoon na déclencher mboot mais dafa taxaw di dóor di jéem dóor. waaw waaw waaw dóor bi amu si yoon am na lu ko gën a gaaw caacaayu bëre parce que tey jii takk na la yow xoolal loxo bii ngay dóoree moom ngay teg fii. puus ko fii fii fii fii yax la sa baaraam bi moom nga fiy dugal puus ko day génn par force non lu te fan lay gis ci bëre la kooku bala ko appliquer da lay arranger bu ko doon wax arranger na la bu tasee dootu fa delluwaat avertise lay doon waaye duñu la aj duñu la daga parce que bëre daa am caacaay Modou loo saa yoo ko yenoo si buy wàcc sa yii lay bés da ngay wàcce far force ama seen jël na fi tànk Modou loo gis nga ko da koo teel a ñëw nangul dugal fa loxo ba bés koloj ama tegg tànk bi fëgg ko ans fëgg ko uppercut dootu ko defaat parce que bëri da nga koy muus am caacaayu bëri mais boo amul caacaayu bëri am na fu la bëri di àgg caacaayu génnee mbër ma mais du du xam-xam du technique mais xoolal loxo bi muy dóor amul intérêt na teg fii si si fii puus ko day génn far force mu dugal épercule mbootu tàqali ko parce que moo gën si moom gis nga tey ji li gën a prane saatee si xeex bi mooy Eumeu Sène nekkul ku ñuy dóoree nii nii la ak nii waxal nii ak nii boo ko pertee si Eumeu Sène ñàkk nga ko parce que Eumeu fii lay teg bopp bi si sa fii moom lay dugal bopp bi teg ko fi kon boo ko éperculé da koy am boo jamee da nga koy am parce que balaa dóor day taxaw laaw te laaw munoo laaw mukk te sa bopp ñëwul léegi bu doon bu doon xeex Modou Lo bu xàccee laaw bi rek da koy daaj roof ko épercule mu pare bu yàgg mais mbër mi da ngay xool ni muy faayam ak ni muy daano nga seetaan ko bëree ak moom mais ëmma ñoom nee naa leen chaque jour mbër day préparé combat bi mais du préparé biir mbër ma léegi gis nga feeña wala feeñu moom xoola Sa boo ko waxoon ne tey ji dañ koy daane nii duñ la gëm duñ la gëm de mais bi bi bi ko ëmma seen tegee fa laa xamee ne ëmma bëgg na combat bi mooy ëma bu ñu demee ba nga xamante ni nee na Sa bu leen ko bàyyiloo mëni ñam parce que bugguma koo daan ñu naan ñu naan merci moo tax ma ne kii buñ ko déewul Sa Thiès ñeme na Sa Thiès bi mu ñëwaatee ba si digg géew ni mu soulagé ak ni mu bàyyee téere yi laa ne kii daa mbapat si parce que ëma mi ngay ki téere buy buy mbapat day takk ay laapataake parce que da koy xaanjoo bëri si du takk ay laapataake day xaanjoo xeex bi si diggissement bi. mais dama gis même bi la bëreeg Balla yooyu nga ñoo kët si ñoo war a nandu loolu déggoo fi may wax ak yow de su naree xe bëri si su naree bëri si day day day day unique. takk takkaa yu bëri. xaw laa waaw xaw tooñ nga ne ay ëmm day xeex si bu la jàppee sa ngemb li dootoo ko defati mais tey bu naree xeex si bu naree bëri si day ñëw takk téere nga ne sa day xeex si mu jàpp la bu yàgg. te xoolal li mu takk ñëw di ko xooy ay laapataake bugg ko day përisi parce que bu du woon përisi du taxaw ne nii déedéet daggal loolu waaw dem déplacé wu parce que xam nga ne kii day përisi kii bu may ñëw si koom du ma yëg noonu la Sa Thiès waroon a wax bu may ñëw si koom du ma yëg waaw parce que daa waroon jikki-jikki ni cirib si garde bi am ko ba xam lu mu indi jiyaar ko yëngal ko te du buuse fi mu taxaw moom parce que mënoon na koo manipuler ba saadu ba Amadou toog parce que bu ko xëppoon na ko deux secondes su ko amee ma bàyyi su ne yaa ama sóoraale ko léegi ubbi na falan moo tax signature da ngaa war a xuuf ma mbër mi bu mu xam ne yow da ngay maslaa boo maslaa tey nooy wax tey bu ko ne woon boo xefee doo gis jël bi yow ama waat bu dee yaa ama day foo jaar loo mu tëbee mu raf mënul ñàkk waaw léegi am nga tur yu waaw am nga tur yu bëri Balla Gaye si la doon naxe am bu ne yaa si nga wàcc si tànk yi ne si na mu dugal bala ngaa xamul ko mu ramassé la teg si suuf. parce que ba tey psychologique la la desee mën ci làmb. merci te loolu desee bokk. waaw léegi ñu ñëw ci bu ñu ñëw bi ko Eumeu Sène takkee noonu ba koy tegal 16 est que foofu tànk ba muy Eumeu Sène bi mu koy tegal bi mu koy bi mu koy sukkar bi noonu est que tànk mënu ko woon dugal si entre tànk Eumeu Sène pour kal ko. am na caabi law be foofu mën ngaa kal bële mu toog. mais ama defee. bi ñëwee ci action boobu ba Eumeu Sène takk ko ba ko sukkar bi du ko tegal seen foofu saa est-ce que mënut a dugal tànkam si ci entre tànk Eumeu Sène ni pour kal ko foofu. waaw foofu laa lay expliqué ma la bu ko ta boobu laa naan bu ko caabiloo mais léegi day xoolal am na nu muy takkee si kaw moom day libre mais am na nu mu koy naje du bouger xoolal Sa Thiès xoolal bi bi ko bi mu roofee sawaay Eumeu Sène bi pour nga xam li ma lay wax xoolal Eumeu pour nga xam ne bërëkkat la fi taxaw bouger wu bu bouger woon rek day daanu. wala mu def ko colal mais ëmma xam na nit bii bu bu bougé rek li muy bëgg du ko am bi mu nee taj ba mu leer ko ne lonk na ba pare ëmb fii la daal di accéléré braqué moom ba mu ba ba mu ñëw si épaule bi fii mu doog a pousse tànk bii parce que su ko deful woon day da koy saacees galgal bi day réussir mais naka la ne galgal taj mu mu génn kaw gi ne ko du lem bu bàyyi woon ba suuf saa kaw saacees gi lemu ëmb day dem mbootum colal for force wala mu wéy kalu ko dem ak lu tax lu tax kalu ko foofu te tànku saa kees mi ngi ci kanam ñu ci ngi ci entre tànk Eumeu Sène yi waaw non non mënu koo kal foofu parce que li mu modd si faar yi moo tax mënul def lële lële li koy liggéey lële liggéey bu fii doxut fee dox dafay jege waaye doo dem parce que li mu naj fii boo boo xoolal du ko najee nii xoolal xoolal xam nga fii fii boo ko fi najee day tourner mais xoolal loxo bi lay galañ nii teg ko si faar gi eto ko loolu mooy eto si yax gi yax gi fii fii moom ngay teg fii bés mu doog a dem loolu boo ko defee ba dem doo tourner moom ñu dóor la fii ak fii ñooyam am na mbër yoo xam ne bu doon ñooma fii lañ koy pikiir si xol bi lañuy ñuy téye seen benn baaraam ama day bàyyi far force parce que fii kër la mais moo tax caacaayu mbër da nga koy am boo ko amut doo bërikat ci biir la wala ama bi mu demee ba bëgg a yàq temps bi xaw ma daa laal loxo bi mu dagg xaw ma sawaay daa dóor mu bañ ci feeñ xaw ma mais loolu noonu mu dem ardo di gis distance boobu may jooy naan mu dem ardo ñëwaat bëri ama am na si lu bëri te loolu war ko si woon am parce que ama gaaw la jeexaloon na bi njëkkee mbëkkante Sa Thiès moo dominé mais biñ demee ardo rek ëma daa teel a noyyiwaat dàq premier suuful bi gën a firi moom bu ñëwee day doog a egsi kee di kee sóoraale fayu moom mu sóoraale jàpp ko mu jeex parce que bi xeexee Eumeu Sène moo njëkk a ko tante ko chargé ko mu jeex mun na am nag saa daa war a ñàkk parce que bis bi nga waree ñàkk cuune ngay doon. mais dama gis sax Eumeu Sène même système bi bi muy bëreeg Balla moom lay bëreeg euh, moom la bëreeg Sa du leen ba ñu jàpp. xam nga ñaari naax boo ko ak frappé lii ak lii ay naax la moom la bër daane Balla gay mais kii daa wàcce naax yi korose ko parce que daal diis mais daa xaaj diisaay bi li si kaw soxlaatu ko loolu du poids bëggatul loolu parce que moddu nag fii ba pare parce que hauteur am la bëgg di liggéeyee léegi lee bu ko jàppoon du léegi du am fond pour buddi mais gis nga ko ba mu dawee ba dugg foofu daa mel ne kuy toog si suuf jéemul woon toog si suuf parce que Ama Baldé Modou Lô ba ko Modou Lô bëggee war ndox ma daa mel ne na koy sukk bàyyi leen xel loolu bëri bi mooy àgg foo xamante ni pour nga àgg fa nga bëgg il faut nga teg api mais Sa Thiès xoola fi loxo bi ne lay gitaar ba loxo bi sës mu baraake ko na comme ni ko Eumeu Sène def mais Sa Thiès xoola ba léegi ma ngay bëgg bëri jargarlal yooyu xaju fa mais foo mu tegoon ans ba rek fa la bëre ba yem loxo bi si kaw nga lekk yow Sa Thiès moom ngay crossé ba mu gën a serré nga braqué na la day tëdd far force mais bu doo ko defoon mbëru ndeflek wala nga def ko mbëru simple wala ñoom tóoni dootoo ko defati. waaw parce que benn bëñ du yooyu mboor foofu dee na ba pare parce que mi ngi si suuf yaa ngi si kaw lekk nga benn loxo bi léegi su defee nee routine bi da koy arrangé léegi braqué loxo bi mu jëf ne. su waaw bu loxo bi wi ñaaroo du siisu. danaa nemm da ngay gën a dugg si 18 ba mu tëdd mais Sa Thiès da ko topp si rythme ba ba arrangé sa waay sa jaare fa jël jël naax bi takk du yoon parce que loxo bi ya ngi nii léegi avant muy yoor loxo bi la pour jàppi fële pour wàcce bi mu complet léegi loxo bi nga lekk yow Sa moom ngay braqué mu jëm si ginnaaw loolu doyee lële lële dee na ba pare mooy intérêt yow lii mooy sa intérêt dañoo def loxo bi tegu ci ndigg mu lekk nii si loxo bi mooy intérêt Sa dem leen ngeen seetaanaat combat bi wala nga tegal leen ko rek nga xool foofu mu lekk su baraake woon na le ëma day ñàkk far force parce que lii mu téye nii rek am parce que fii rotir la fii rotir la boo si téye boo baraakee ba mu sës boo appuyé day taxaw wala nga diriger léegi bu taxawee yow da ngay mën a dem nee si faar gi ba ma mu jaaxaal. am na ñu ne Sa ci nekkul ci sax xamee wuñu Sa Thiès si combat bi. non non ni mu doon ni mu doon bëree bëreewul nag. Sa yi doon daanu yi doon bëree si yëpp bii moom tay la bii moom Sa bu bees tàq la mais nag dañ ko koy dañ ko koy baal de parce que ki ko daan war na ka daan waaw parce que nga daanu coow lu juub du ñàkk fayda ndaanaa na koy am. macha allah baam bala moo gudd ñu jeexal ca Balla Tapha Tine face à face bu nga xamante ni démb bokk nañ ci face à face yu gën ci face à waaw face à face yu la mais bu at bi noonu pire am na koy daan. am na démb ci arène bi noonu. waaw bu at bi noonu pire. Tapha Tine day ko quoi parce que teel naa yenu combat bi Tapha Tine moom signature nu mës a signature di yuuxu boo yaa ngi yëgul boppam. waaw mais waaw yëg boppam bokkul ci combat ku naagu daagu ku daanu ñu romb la ko fàtte noonu tekk tëru ko am de te am na bal yoo xamante ni soo ko yoree yow Tapha Tine waroo koo basaade da ngay naan mugg ak moom te yow yaa ngi dégg sa jow léegi nga liggéeyal sa bopp. mbër day liggéeyal boppam si kaw tribune bi si kaw nit ñi waaw tafatin poids bi arrangé wu ko arrangé ko rappeliteel acca ah tafatin poids bi daa bëri daa bëri xamal ba xam yaa ko moom acca ah mais léegi tafatin mooy ñëw mooy accéléré mooy bëgg a topp Balla Gaye si rythme bi mu ne ba pare ba juum ba fàtte moom ni mu war a préparé Balla. tàkk ci koom démb. non day gën a tàkk rek làmb ji mënul yomb. tàkk nañ ba pare baa leen ñu boy rek parce que ñun bu newetee ñu wax lu tax muy lewet mais bi muy yuuxoo moom bu ko seetaanee dina xam ba xam daa war a yokk yuuxu yi wala daa war a wàññi yuuxu yi. seetaanaate. nga xaayaan ku dégg séeréer waaw kay bu ko seetaanaatee xam ba xam wala daa war yokk. mais par dama gis comme face à face bi jeex si réseaux sociaux yi dugg gis image yu Balla image yu Tapha ko collé noonu différence de poids beeg différence de taille. te gis nga li si des si ay weer ni mu bare ñaata combat ko fi kenn waxatule waaw pomme du new salade du moromu ñax parce que loolu dañ kaa war dañ kaa war a taaru rafetal ko parce que combat boobu daa am combat yu si mën a tàqali ko hmm? parce que si la ñu xam ba xam baala pare na wala parew te ñoom ñaa ñëpp si financé xaalis te ku ne tukki na te gars bëgg nañ combat boobu parce que Tapha Tine ba xam day jëli roi des arènes wala Tapha Tine mënul daan baala gay ba léegi. waaw parce que Eumeu Sène a ngi ni duggaat ko ñoom Balla Gaye li gën a garaaw ñu mu ni ko mu confirmer ko tey te bala Gaye a ngi ni duggaat Bawol waaw non non non aller retour la leen defal ale te nga wax ba aller retour ak ale la def kër Balla Gaye ñoom aller ak ale Pikine amagu ko fa waxal trophée yi ama am Pikine kenn amu ko fa ama ñi mu daan ci làmb Pikine kenn bëreegul daan leen man nangu nga mairie am ku dàq bëre si Pikine Eumeu Sène la nangu ngeen ko parce que looloo yoon tey mën nga ne Sénégal sax waaw nit dàq ko see bëri bërikat la daan Balla Gaye la daan te Balla gay la gaa yëpp na ma dàq bëri waa ki daan ki dàq bëri kan la. Balla Gaye Tapha Tine Balla Gaye Tapha day neex munu wax ba du neex mais Balla Gaye li ma si mën a wax ba wax ko mooy xaarib dinañ si waxaat Balla Gaye daa war a dellu. dellu fan fa INSEPS. yaakaar naa sax dina dellu. lu tax mu war a daa war a dellu parce que li des ci combat bi bëgguma mu toog fii sax man boog sama gis-gis laa wax de sama xam-xam mais ku ne mel ne Balla warut toog fii ak di SRS yi na dellu concentré wu daan Sénégal liggéey leelu parce que fan si am na lu ñu soxla te moom xam na ni seen kër non non non non non saaga warul jëm fuñ ko foogewul te war naa mën a wekki bakkan bi teg ko ndax baala borom jom la. waaw kon boroom jom nag day teel a rooti. waxante ñoom ñaar nag da ngay dindi stress kii na ko dëgg day dindi stress parce que yàgg naa mere baal yuuxu yooyu yëpp dindi stress la waaw parce que tey jii de moom saa moom tafaatin yuuxu yi dama yaakaar dane bu doon taya yuuxu bu doon taya ah loolu bu doon tay la wax la sa na ko yow bu doon tay doo ko def da ngay dindi sa stress yow sawaay mi ngi dégg yuuxu yi mais ñiy déglu yuuxu yi dégguñu yuuxu yi mais yuuxu yi ak moom ay wax la dégg est-ce que nga ma yuuxu yi mooy bu doon tay léegi léegi nii la ko wax sawaay na ko bu doon taylaat kon yow sa SRS ngay dindi nii rek. damaa ko ñett adversaire yoo xam daan Balla moom mu daan diw daan na fii ma daan ko non loolu si dara loolu du si dara tey ëmma ñi ko jaaxal ñëpp la Balla Gaye daan. waaye waaye moom it ah, ëmma ñu jaaxal Modou Lo ñëpp la ko ëmma daanal waaw kon loolu du si dara du si dara defetu Sa Thiès bi Balla Gaye jëm defetul Sa Thiès bi ak combat bi Balla jëm ak Tapha Tine mi mi mi loolu ko ku la ne du si gée waxu loolu am man sama rakk bi ma bokkal nday ak baay bii suñu kër buñ ko daanoon day gée si man man xaw ma nag keneen man lu may wax sama bopp laa koy conseil da si gée parce que moom Balla Gaye lu mu doon si yow am lu mu may gaay seeni fans kii faral bala Balla Gaye mooy faral Sa Thiès en général da nga lool mais bala bu leen daanale jël bii dañ dañu fàtte jël yële parce que bii moo gën a neex bii bi mu ngi mel ne bii lutte de champion la ak ay championnat bokkul Tapha Tine Balla Gaye de champion la bokkul si lit ba la jëm ñoom ñëpp ñoo bokk jëm sa roi des arènes bi bokkut ak yi nga xamante ne ay champion naa la ay benn ba fee Géejawaay ak Malika ak Caaro jël benn point yu ndaw yi équipe yu ndaw yi bokkut ak équipe yoo xamante ni ay ay ay ay de champion la ñuy fubal bokkuñu. mais mais ñu tafatina Balla ñu ñu réussir ba am commune ba jaay combat yi ñu def ak démb face à face ñu ci wane ci ci ci est que loolu jotul tey yeneen mbëri tamit. Euh, xool ci ñoom ci roc ci ñoom ci côté boobu a gën a mooy def loolu Pokola ak Roland def nañ ko seen signature xoolal daanaka booy jiyaar lañ ñu mais xoolal tey ji daanaka tëggalaan leen la te ñooñu daanaka Aziz Ndiaye du leen bàyyi ndax Baye Ndiaye dem na ba daanu jée la dugg ba si biir géew bi te si combat boobu rek la duggee si géew bi te booyooyu mën nañoo gañe lu ne parce que combat bi dañoo joxe lu ne muy Pokola ak Lion ak Louis waaw parce que loolu mooy àdduna Balla Gaye ak sawaay mii nii ñu màmmee nii si làmb noonu la ñëpp war a màmmee làmb ji mën a port boo bëggee sa fees ne defal ni gars yi Pokola Sawaay ñoom ak Talf ak Youssou ak kii ak Mor Kankang ñoom seen ñoo duy fee parce que ñoo neexal affaire yi dafa mbër sax der la parce que ni muy signature day teg sañ-sañ ba pare lépp day leer. waaw kay merci te loolu day dundal estat waaw di ziar ñëpp waaw di masawu ñëpp waaw di ñaanal ñëpp di sàkku ñaan ci ñoom waaw di képp koo xamante ne laamul lëwum ko rek lu mu fi wax lu juumu rek na ngeen ñu baal àq. macha allah bu baax a baax di jaajëfal ñëpp ñuy suivre Catapult Italie Espagne di la ñaanal jàmm bu baax a baax di ñaanal lu ñu foofu yàlla yombal leen ko di leen dig daje benn ñun ba leen invité ci